loo ñu ngi lay nuyu di la dalal waaw maa ma fàttali euh, suñu auditeurs yi na ñoo ngi dalal euh, ingénieur statisticien économique euh, économiste pluto jiite wala sax doon directeur général bu bureau de prospective économique monsieur Lo yéen waa BPE ngeen fësal bu yàggul benn analyse jëm ci mbas mi ngeen joxe tamit ay proposition ay mesures yi nga xam ne bu ko Sénégal toppee mën na am ñu jëlee ko fii mën nañoo xam yan mesure tey ngeen proposé Sénégal Sénégal. waaw Sénégal xam nga mbas mi na ba fii bëgg a jeex. Uh-huh. Uh, soo jëlee mois de novembre ci gannaaw. Uh-huh. mooy ñaari weer ci gannaaw demoon nañ ba daanakaam bis bu li ministère de la santé di wax ne moom moo am mbas ci mi. Uh-huh. lu lay doon daanañ am na bis buñ demoon ba am ñett. Uh, am na ay bis goo xam ne ay bis gi kenn rek lañ wax ne moo ñàkkoon bakkanam. biñ demee nag ba mois de décembre dafa tàmbali yokk te kenn xamul yokk bi fu mu mhm. ci lool lañ nekk ba tey jii daanaka am bis bu ne ñu wax la lu jege ñaar téeméeri wala mu ëpp ko wala téeméer ak juróom benn fukk lu gën gaa tuuti jëm yooyu daal. Mhm. ba tax na kon jàpp nañ ne daal mbir mi yokkaat na te fi ñu toll laaj na nga jël ay matuwaay pour mën a fexee que mbir mi bañ a ëpp say loxo ndax bi mu yokkoo li mu ci gën a grave mooy daa andi cas grave yu gën a bari waaye andi tamit ci ñàkk seen bakkan mi gën a bari ndax euh, jàpp ne daanakaam bi at mi wees yi tàmbalee mhm. li fi ñàkk bakkan euh, euh, su fekkoon jël nga mois de mars bu mois de juin mhm. dafa ñàkk bakkan day noonu ba mën ngaa dem sax ba mois de juillet pour wal na ne bari na lool loolu nag euh, day laaj nga jël ay mesures njëkk bi euh, mooy euh, ñu fexe ba nit ñi takkuwaat mooy ñu doon nekk waa kër yëpp jógaat niñ daan defee di wut li wala raxasoo di def yi gelat di takk masque di bay di bañ jaxasoo bi ñu jógaat ndax bàyyee ko moo indi Euh, donc ñoom daal ngir mi ci ñoom la njëkk a mooy fexe ci biir famille yi ku ne daal jóg ne man parce que man naa koy arrêté ci jógee euh, masque yi tamit il faut ba mu yomb ba mhm. xam ne ku ne mën na cee dem sax masque yi nga xam ne dañ koy fóot ñu fexe ba ñu may may leen ko ndax man waral naa loolu moo ndax suñ demee a may élèves yëpp juróom juróomi million masque a dem ba may ko waa réew mi bu boobaa xanaa eh, état daa am num ci taxawee waaw xanaa da ciy génne koppar rek yaakaar naa état moom si génne dana mën a ñëw ndax loolu day tax kenn dootu am lay fexe mhm. ba sénégalais yëpp ñu may leen mas leen ñaar ba ñetti mas su ko def communication wax ak ñoom wax leen ñu takk masque di ko tak takk bu baax euh, yaakaar naa suñu jógee ci lool daal euh, mën naa andi loo xam ne dana wàññi feebar bi ñuy am ci réew bi tamit test yi nañ ko yokk ndax test soo testé wu lu bari rek bay tax nit ñi duñ xam feebar bi leen dal loolu mooy dem ba indi cas grave waaye suñ gaawoon a xam nit ki di ko dal ci lañ ko gën a mën a fagaroo dañ koo gën a mën a faj boo xam ne sax du du du jafe mhm. waaye su demee ba ak ak yenn niveau moom day day daanaka am pour sooyee ci ki day day jafe moo tax nañ fexe bu mas ba test yi bari dem ba mat sax euh, fukki junni bis bu ne dem ba mat sax ñaar fukki junni bis bu ne yaakaar ko defoon dana tax euh, euh, mu gën a mën a toppatoo nit ñi mm-hmm. même mën dem ba test yi sax kenn du fay nga xam ne ku ne dana mën a testé wu xam sa yaram lu loolu daal yaakaar naa mooy li gën a yàkkamti fi mu toll nii ndax piqûre bi nag mooy tax mbas mi jeex fi euh, waaye piqûre moom xam nga yombul ndax am na dëkk yoo xam ne fi mu toll solo mbir yi gën a takkarnaase ñoom ñooy xëccoo piqûre mm-hmm. xëy na am na ñu ko yàkkamti lool lool mooy ñu am yenn feebar yi ak ñu gën a mag euh, xëy na mën nañ ko mën tuuti mm-hmm. waaye li am solo mooy fii ak déwén nañ fexe ba réew euh, waaye ñi ko yàkkamti lool moom ñu ñu piqûre bi nga xam ne mënuñoo xaar. d'accord loolu daal en gros ngeen proposé mu mel ni sànq euh, ba ñuy waxtaan ci kàllaamay euh, français yaa ngi wax ne zone yi nga xam ne tey mën nañ jàpp ne taux bi dafa gën a yokk war nañu am nañu taxawee ci zone yooyu li euh, nan lan lay lan lay lan lay aar wala lan lay yokk ci xeex bi. xam nga fi ñu toll comme nee nañ boo xam kenn du jóge fenn dem feneen mhm. loolu moom xam nga bu njëkk amoon na njëkk mhm. kenn woon jóge benn région dem mhm. beneen région waaye ren ren moom aayewuñ ko waaye daf nañu wax couvre-feu mooy fu neuf heures ci guddi jotee ku bokk région Dakar ak région Thiès amatoo droit génn ba fajar euh, waaye soo jëlee région Thiès xëy na situation Mbour ak Thiès mën na bañ a mel situation Tivaouane xëy na Tivaouane mën na bañ Euh, tuuti mën naa tuuti la gën a tuuti la ay cas. Mhm. ba tax na xëy na mën nga ko bañ a boole ci confinement bi. am na département bu mel ne Kaolack aussi gis nga cas yi ñu fa tàmbali yokk wala fu mel ne département Mbacké ñooñu xam nga soo confiné ñi bañ leen confiné mën nañoo wax lu tax ñooñu ñu ba tax na soo ko defoon par département département bu ne nga surveiller ko soo gisee ne yaa ngi yokk foofu nga def ko foofu foofu. dana tax ñu yëgal ko mhm. ndax dafa da jàpp ne euh, stratégie gi ñu adopté jamono ji euh, dafa desandi comparé que première stratégie gi ñu amoon ba mbas dugg si waaw xam nga bee moo gënoon tar waaye bi mu taree gis nga tamit ci moo tax ko waaye doon naa ci fan yi ñëw na gouvernement bi dina dina justement cas communautaire yi ñu gis ne dafa gën a yokk ci seen jàngat bi am na lu ngeen ci indi ndax mën nañoo xam yéen lan ngeen jàpp wala gannaaw nag ay enquête lan ngeen gis ne moo yokk cas yooyu lay waaw cas yi moom wax naa la léegi bàyyeeku bi waaye tamit ñàkk euh, test yi ndax su test yi bari woon ñooñu ñëpp dootuñu nekk cas communautaire cas yi ñuy xam lay doon mooy lañu lañu lañuy testé fi ñu toll daal lañuy testé te tamit nit ñi wàññi si jaxasoo bi te di sol masque mais si yooyu yëpp amul moom cas communautaire day day yomb la. monsieur tey jii euh, mbas mi am na njeexital ci suñu koom-koom ñu bëggoon a xam ndax am na conséquence justement impact bi euh, ci suñu koom-koomu réew. waaw moom am na ci liñ ci gën am njeexantal moo doon daaw daaw moom bi ñu tëjee lépp daanaka am économie fi dafa wàññeeku woon bu baax a baax ndax ñun moom suñu mënatu yëngatu rek daanaka dara dootu dox waaye bi ñu tijjee nañ ne mbir mi tàmbali war na dox àggagul nag fi bëgg waaye am solo ren tamit gis nañ ne donte kaayaa ngi yokk euh, comme nit ñi téyewuñu leen bàyyi nañ leen ñuy dox dem fi ñu bëgg a euh, des guddi gi euh, gis nañ ne économie bi ñu dox. te liñ defagum tamit Dakar ak Thiès rek la yam waaye ñeneen ñi ñoom ñu dox luñ daan doxe donc euh, gëm nañ ne daal ren comme jàng nañ ci daaw liñ defe woon biir yi dana gën a dana gën du metti lu metti woon daaw daal am na fuñ tolloon daaw comme ni nga ko waxee ñu dégg euh, spécialistes yi ñu ci bëri ñi di commenter naan Sénégal tey egg na récession ndax dëgg-dëgg suñu dëkk àggoon na foofu waaw xam nga loolu balaa nga koy xam il faut nga xaaraay weer ki ñuy wax ANSD nga xam ne ministère de l'économie moom rek moo am droit saytu wax ne lii la comme moomu réew mi yokku mm-hmm. euh, daaw li doon def lépp yaakaar ak ay calcul yu ñu daan def ak gouvernement man na am ne service yoo xam ne ñoom ñooy calculer wax ne lii lañ yaakaar ne dinañ ko am mm-hmm. waaye suñ demee ba xam ne ci gouvernement bi la nekk waaye tamit am na pour mën a wax mbir ni mu ko gisee kooku moom mooy saytu wax ne ñoom lii lañ gis daal ne te moom nag fi ñu toll euh, mënoo koo wax ne koom-koom euh, euh, bi du du li nga yaakaaroon ne sax da nga ko am te mën ko bañ a am loolu yëpp mën naa am ñuy xaar daal xëy na si ak mois de mars avril danañ génne rapport. waaw ndax tey jii ni nga gisee en tant qu'économiste économie bi di doxe ndànk-ndànk mën nañoo am yaakaar euh, suñu taux de croissance am benn euh, position yéeg ba euh, fiñ ko njottoon. waaw xam nga ci koom-koom moom su fekkee at yu weesu da nga bu baax ndërmeelu at yokk da yokk rek a def. donc moo tax ma gëm ne yaakaar ne danañ fa am mooy koom-koom bi yokk juróom téeméer yoo jël lu mën a nekk la euh, waaye nag li am solo mooy at yi ci tegu fexe ba continuer di yokkoo noonu nga dëgg na xam Sénégal dëkk bu mën a euh, euh, taxaw fekk fekk jafe-jafe bi mën di ñëw rek dana mën a fexe ba jàmmaarloo moom ba génn ci ndax suñu mbéy mi mën na andi benn apport ci boobu les waaw mbay mi moom xam nga man na ci andi doonte Sénégal du mbay moo ko yor ndax euh, su dee téeméer li jóge ci mbay daanaka juróom-ñaar rek la wala juróom-ñett euh, soo boole mbay nekk sàmm jeeg ak euh, napp bi ak li jóge ci àll bi mooy li ñuy garab yeeg yooyu yëpp mm-hmm. soo ko boole fukki fukk ak juróom rek lay doon ci téeméer boo jël waaye nag euh, su fekkee yeneen secteurs yi doxuñu bu baax su fekkee mbay mi dox na bu baax a baax moom man na man na tax ni ñu foogoon ne danañ ko wàcce du du wàcce noonu yaakaar googu la ñu amoon ci daaw waaye nag su loo su taw mi kom ni mu baree woon daaw tamit mën na baax waaye ci yenn gàncax yi taw bu bari bu ëpp tamit du ci baax bu tax na li ñaan yàlla mooy ren am am taw bu bari te te baax ci gàncax yi. monsieur Lo Moubarak Lo merci beaucoup. jërëjëf